ba ca ne woon Mamadou Mouhamed Ndiaye. xalifa généralu muridi la gaa yi teg dil observateur nañu loolooy mbambali ca dëkkub sëñ bamba ba bamba Abdoulaye Sall nañu ci journal bi addiyee ñaar fukki millions yu Macky Sall yóbbante woon xalifa bi moom la gaa yi ngembal lenn la lépp nga doore ca ba ñuy waajal conseil des ministres ca diwaanu Njaareem ca la ñenn ñi sante Macky Sall mu recevoir benn waay boo xam ne mbir la ci comité d'organisation ba waaja dem ca ko mu yóbbu Touba ba mu yegsee ko benn mbàkke mbàkke ngir mu waajal yëf yi ca diwaanu Njaareem ndax fa ñaar fukki millions jox comité d'accueil ba nekk ca Touba ngir ñu waajal délégation baak dal ga ñu fay dal lu ñu fa dépensé nañu ko fay yeneen ñaar fukki millions ya ca des ñu ne nañu ko jox xalifa ba addiya gars yi ne ko tipp jël la leen ca neex joxe la des ma des ci sang bu tedd bi di sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke des ba léegi ci observateur ubbil yéenekaay bi la ñu ne woon sëriñ bi keroog ba muy dajeek Macky Sall daf ne ko woon na dakkal en bloc yi muy jox këri diine yi sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke nee na ci yéenekaay bi waxu ko tey waxu ko ëllëg bañ na ko ba petoo di tête à tête amul diggam ak Macky Sall Abdoulaye Bamba Sall bu observateur nañu gars yi dañoo meloon na ñu yàkkamtee a yëf yi ndax ba ñu gisee correspondant observateur ca kër sëriñ ba dañu ko woo jaarale ko ci beneen buntu ne ko kay wuy sëriñ bi dafa bëgg a wax yow ba mu demee fekk sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke muy nangu siyaar ci la leen sëriñ bi ne may leen ma ci siyaar ba ma lijjanti mbir ci daar daar bi woolu Abdoulaye wax ne ko man moom bi le mbir mu di man sëriñ di Moctar Mbacke aw ma defar aw ma ci yàq ka ko doon wax di Serigne Saliou Mbacke kenn ci taalibeem di Cheikh Béthio Thioune moom la laas yéen a kaay xëy ak ñun yéen a kaay bi nañu fot fot sa munta tàggale mbaam ak noppam Cheikh Béthio Thioune nekk ca kaso ba du ko tee takk ay sëy juróom-ñaari jabara yi ñoo ko wër cantakonom yi bëggante dikk ca moom muy fas daal a dana yamu ca ndax ajjuma bii di ñëw lu mu gàtt-gàtt juróomi téeméeri daayira danañu dem ca ngir màggal fa laylatul xadar ka ñuy fekki moo di seen sëriñ ba di Cheikh Béthio Thioune ma nekk ca kaso ba ñi fanaan kaso bii classe yéene nañu ñaar lañu moo di bay la woon ma jiite woon LONASE ak Kondeto Ñang ma nekkoon ab PCA journal bi dañu bay la woon daanu na yóbbaale Kondeto Ñang Aline Diop moom nekk cib sursis direct info nañu muy bay ak juróomi téeméeri million mooy la leen bàyyi ci rëbës ñetti milliards ci marché gere gere an ci nañu moo xew ci ministère intérieur jamono ji ñuy waajal élection législative yi Mbaye Ndiaye cig njuuj ne benn appel d'offre amu ca mu jox bi nañu njuuj njaaj googee la ñuy waxtaane ci ministère de l'intérieur Karim Wade doomi Abdoulaye Wade bu sàgganul hors lay doon ca justice la tax libération nañu procureur spécial fukki fan la may Karim Wade ngir la mu am muy teraanga ju mu toogaale te xel yu bëri jàpp ne am am ba lewul Karim Wade na ko prouvé na ko bàyyam daan waxee ngir leeral ko bu bëggee ñu bàyyi ko mu dem ñu dem dem ci li xew yéene kaay xooli la xew ca SAPCO Macky Sall la mu def Youssou Ndour moo di jox ko bopp ba noppi rocc làmmiñ wa SAPCO yéene kaay bi nañu am na lu ca xew loo xam ne Youssou Ndour yëgu ko tiinu ko ndax conseil d'administration ba ca présidence la ñu leen convoqué jël fay dogal Macky Sall Paul fay la jël def ko directeur général bu ko juga saaxoo ma fa ne it fa la ko bàyyi waaye PCA la ko def journal bi di laaj SAPCO ak doole ji mu am ci wàllu tourisme bu ñu ko xañee Youssou Ndour ana nan la yoree tourisme bi ci réew mi réewum Sénégal ak gouvernement baak ña ca nekk ak la ñu dogal ci quotidien dikk yéen bi nañu fanweeri fan yoo xamante ji dañuy yox yoxi teggi seen tànk nañ doon liggéey duñu ko def mënees na koo jàppee vacances ci jamono joo xamante ji urgence di jafe-jafe daar daar moo sëkkatal askan wi ñu yaakaar ci gouvernement bi gaaye ca nekk wan nañu leen doon wan leen ma wal fajiri grand place ma wax leen fa Eumeu Sène mujje ak Luc Nicolaï journal bi nañu Eumeu Sène a nga ardo suuf bi moo ko fa yóbbu ndax sàkku na ci moom mu yëkkati ñaar fukki million ak ñaar fay ko Luc Nicolaï observateur nañu waaye yëf yi du yombee noonee ndax ba fi mu nekk nii Eumeu Sène ma nga ne katiwu lis ci ngembal Luc tey du ko bàyyi ëllëg ci gàttal journal bi nañu mbër mi di Eumeu Sène Eumeu Sène di fa xam ne dañuy sonal seen bopp rek waaye ñaar fukki million ak ñaar xalaatu ko fay sax Luc Nicolaï ñu ne ko lu tax mu ne ñu ci sunu làmb xaalis ba ñu koy toppee gisu ko laalu ko yëgu ko tiinu ko bu ñu soxlaa xaalis nañu dem laaji ko atta Walfadjri Sport nañu Eumeu Sène nag mi ngi ci guuta gu rëy ndax war naa fay Luc Nicolaï ñaar fukki million ak ñaar ba noppi contrat bi dox digg ma Gaston Mbengue mu jëfee ko journal bi di laaj a Eumeu Sène fan lay jaar wala nan lay ko ñu matal li ci yéenekaay yi ak li ci dul jamonoy koor ay pantalon yu gàtt ay jupe ay robe yu sexy yooyu la ñuy jaay surnaal bi nañu jamono ji ku moytuwul seen korite du neex ndax seenum njaay doxatul xale yu jigéen yi li ñu xewal weer wi moo di ay mëlf ay ndoket ay tay bas ak yu ni mel jaaykatu porteer yeeg baa yeeg